atté won ci alxuraan la dogaloon nu jël lu Europe atté wo amul njariñ amul ngeureum yalla ni won ci atté wu len ci alxuraan ku wul ci alxuraan di nga dajé ku mbugalam bi fagu ne fagu lu ba aduna bi du keur gu ba xana dañ fi wuté lu ba ngir yóbbuloo ko fañu jëm ku dem sirat am fa lu ba da ngay dalé jallé bu ba bu dee lu du fa baax Sur la question de l'homosexualité, le Sénégal, pour ce qui le concerne, est un pays tolérant qui ne fait pas de discrimination en termes de traitement sur les droits inaliénables de la personne. Mais on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. Je l'ai dit déjà en Conseil des ministres, c'est l'option du Sénégal pour le moment. C'est l'option du Sénégal pour le moment. C'est l'option du Sénégal pour le moment. C'est l'option du Sénégal pour le moment. Mais tout en respectant les droits des homosexuels. Moi, gis nga Obama ak la muy tout en respectant les droits des homosexuels bu ne peuple bi nangoogu ko it président nee na moom malgré loolu yëpp nag teewul ñu respecter les droits de l'homosexuel parce que la souveraineté moo moo moo garantir loolu moo tax jot na ñu def ay débat d'idées à l'échelle nationale. C'est l'option du Sénégal pour le moment mais tout en respectant les droits des homosexuels. il faut que la société absorbe ces questions. il faut que la société

jaral nag ñu lekk suuf jaam yàlla lekk suuf waaye jaamu do ndax tubaab bi ñëw fii wax ma ko ñu seet ku bugg góor jigéen fu ñu am right nañ leen jox visa free ñu dem toog foofu waaye fii ku eggati nga ne yow góor nga nga def sa booba góor jigéen loolu naa ko dog yow am loolu loo promote mooy bàyyi góor ak góor ñu sëy loolu fu ñu ko wér ku ñu nax

no ar.